asalaamaaleykum internet yi ñu nañ leen euh, ziar leen di wax képp kuy gan ci page bi té abonné go ñoo ngi lay ñaan nga abonné té bës bi ndax lu ñu dugal rek nga bokk ci ña koy gis di leen wax tamit ngeen di wéy di liker té di commenter té di partager lu ci am solo la. Euh, vidéo bi nak dañ koy tambalé ak Moussa Niakhaté mom dembu gis nañ ko euh, biko ko Aliou Cissé woyé mu nekk première convocation am ci équipe nationale bu Sénégal gis nañ mu publier vidéo bu exceptionnelle ci page Instagram am vidéo bi. bi mi ngi noonu nga gis ko mu retracé ci parcours am fi mu jaar euh, nga gis euh, fi mu nekk bi mu nekkee xale ak famille fii ci Sénégal nga xam ne kii c'est un moom li mu yàgg wax mooy que. Sénégal le bug jouer joué ndaxte euh, ci fàttali euh, ci euh, weer passé rek équipe de France ak Didier Deschamps bëggoon nañ ko woo ci Ligue des Nations bi mu leen équipe nationale bu Sénégal lay xaar ndaxte équipe nationale bu Sénégal mon mo nekk ci xolam mo dee ci xolam te buy def soit di cœur lay def kon il faut savoir que né Moussa Niakhaté soit di cœur def te gaay yi dañuy faral di wax que né équipe nationale ku fi ñëw da nga wara a ñëw ak bëgg-bëgg ak li nga pour mouiller le maillot te moom euh, loolu la gëm te yàgg na koo xaar ba tey jour bi ñëw na kon mu ngi noonu mu boole ko message boo xamante ne tamit également muy message contenté ak mbecté ci sélection bi nga xamante def nañ ko ko euh, ci équipe nationale bu Sénégal Moussa Niakhaté c'est un très bon défenseur daw gis nañ ko ak clubum feulé ci Allemagne ren ji ñëw na ci Nottingham Forest té il est en train de confirmer euh, actuellement ni kon Moussa Niakhaté diko wax rek euh, bonne sens bu ñëw ci équipe nationale. ki ngeen gis aussi également moy noah Fadiga le fils de Khalilou Fadiga l'ancien international sénégalais moom tamit également démb bi recevoir première convocation de l'équipe nationale du Sénégal bind un message ci compte Instagram Dadi, daal di fésal fierté pour mu am ngir équipe nationale du Sénégal pour la première fois muy que biñ ko convoqué nee na kenn xamul lu toll mënu koo décrire ci benn mot kon nee na rêve la boo xamante ne moo devenir réalité ndax tey nee na yàgg naa bëgg a jouer ci équipe nationale bu Sénégal nee na tey jii moom lion de la Teranga la avant maintenant et pour toujours moom Noha Fadiga tamit aussi c'est un très bon latéral pour xamantene aussi aussi dafa polyvalent euh, offensivement daf lay jox li nga bëgg défensivement aussi daf lay jox li nga bëgg euh, euh, depuis deux ans mi ngi ni ngi koy top mi ngi compétir donc yaakaar naa convocation bi mérité nako ndem sax dafa ñëw ngir pallier wu absence su Youssouf Sabaly ak absence bu en tout cas c'est une fierté pour gis ben doomu ancien international Sénégal ñëw ci équipe nationale te ko mérité mom no Fadiga en tout cas ñukay wax également bon sens ki ngeen a gis pap alsan gay mom nak ren ji gis nañ c'est loin d'être un élément incontournable ci euh, équipe bobu di Marseille mom euh, presque ci match yi ñu def ci saison bi rek gis nañ yim ci jouer comme titulaire bari wul temps de jeu bi mu am ren ji dafa xaw a euh, concurrence bi également dafa bari ci club bobu di Marseille surtout ci milieu de terrain nga xamé Marseille dafa renforcer bu baaxa baax wante mom wax na ci lolu muy wax que ne bépp jour bëgg naa jouer match yépp ci saison bi wante concurrence bi am tamit daf koy nangu te nee na concurrence boobu noonu tey jii moom mooy tax euh, jour bi di euh, progresser lu bare nee na jour bo gis tey jii mu progressé rek concurrence ci la bokk ndaxte nee na yàgg naa xam bu ñëwé Marseille tamit euh challenge bobu la fay fekk te bayina ci xel bu baaxa baax nee euh, à chaque fois bu ko course bi wowe da fay répondre présent muy 5 minutes wala 10 minutes wala 15 minutes lay jouer nee da fay ñëw joué saisir sans am ndaxte jour bu ne tey jii buñ la dugalee ci terrain bo amul temps de jeu il faut nga wane sa bop daal di wane fulla fayda ak jom ay jukkay gaynde Ndiaye ngir nga gën am temps jeu bu bare bëri te mom euh, mi ngi ci yor woowu noonu te il faut être compétitif te aussi mi ngi bëgg progresser kon pap alsan Gueye mi ngi noonu loolu wax dañuy ci conférence de presse kon gaay fi la yema yem ak yéen di len wax euh, ngeen di continuer di abonné te di activer cloche bi jaa ngeen jëf.